jërëjëf euh, Babacar donc ganna biñu santé yalla ba noppi jaakaar naa ni c'est laaj bi amna solo donc euh, je pense que li jitu moy dañuy sant ba le président la Macky Sall ndax euh, euh yi metti wonna wayé mom ci xarañam ak ci le fait que mu nek un grand leader nek aussi un grand rassembleur fexé na ba tay choisiral ñu un candidat bo xamné bi c'est un candidat j'allais dire consensuel effectivement ni ko waxé Euh, la coalition benn bokk yaakaar jox nañ ko carte blanche pour mu tànn waaye euh, wane na ni moom kilifa la malgré carte blanche boobu euh, déglu na njabootam politique am wax na ak ñëpp les leaders politiques ak fu ñu mën a bokk ci biir coalition bi ak ci majorité bi ba ku ci nekk mu wax ak yow ba yàlla dogalee mu def choix bi gis nañ ñi bëriwul ay jafe-jafe loolu nag comme ni ma ko waxee rek day wane ni président Macky Sall leadership am kenn mënu koo weddi kilifa gu mag la ku mat kilifa la. waaye itam rassembleur la te def choix am bi ñu defee bi choix bi ñun kontaan nañ ci ànd nañ ci baax. waaw li ma bëgg wax en tant que en tant que militant discipliné li ñu toujours moi du prononcer prononcé wu tant que le président de la République euh, choi choisirul candidat am tant que taboul ki nga xam ni moom la bëgg mu wuutu ko ci bopp réew mi ndax nag nit boo ko jiitalee jox ko sa kàddu da nga koy déglu euh, waaye démb bi mu defee choix ba noppi ñun ñëpp en tout cas man personnellement ak ñi ma ci politique dans le cadre de Dolli

ci walu ci wàllu parcours am au plan de l'État état au plan de administration ndax inspecteur des impôts la jógee dem ba nek directeur général des impôts et des domaines ministre des finances euh, ministre des affaires étrangères euh, premier ministre koku niko top di waxé il coche à toutes les cases manam critères remplir nako ko am nañ yaakaar ni mën na euh, mën na mën ci jaar-jaaram bo xolé tam ci parcours politique am fi nga xam ni foofu la jaar ci walu politique ndax Amadou Ba ñu bëri dañuy fàtte ni avant les années 2000 amoon na am engagement politique bu ñëpp xamone euh, bi président de la République bi mu ko woowee ci watam tam jàppale ko ne ko na ko ci politique def na ci lum ci lim ci mën ba ñëpp teg ci sen sen seen bët euh, loolu mo waral d'ailleurs ngeen gissone ñu defon coordinateur de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar donc c'est un homme politique aussi aguerri bo xamné ci walu politique mën na mën na jiite réew mi. Euh, benen bi ci top nak te ma japp ni lu am solo la moy sur le plan humain nit la ko xamni euh, yalla may nako ko mu jubóo ak sénégalais yu bari bari yalla may nako ko mu mën wax ak ñep yalla may nako ko mu am esprit de rassemblement euh, lolu japp nañ ni ñetti critères yooyu boo ko boolee mën nañ né choix bi choix bu bu bu baax la li ñaan rek moy ñun ñep nga xamni ñoy responsable la la grande majorité ñu taxaw tém nak dugg ci terrain bi commencer liggéey ngir au soir du. du 25 février 2024 ñu mën a am ndam teg Amadou Ba incha allah ci bopp réew mi. waaw jërëjëf loolu laaj bu bu am solo la euh, effectivement mouvement Dolli Macky nga xam ne man maa ko jiite te mu am base am nekk Louga waaye léegi mu yaatu lool ci biir réew mi ci Sénégal euh, barab yu bare bare ñu am fa ay cellules am fa ay représentants euh, dañuy taxaw temm nag ngir liggéey wàcc ci terrain bi ndax nag élection ay carte ñoo koy gagné. donc euh, maa ngi lancé appel l'ensemble des responsables du mouvement d'olly yi nekk Louga waaye nekk ci biir réew mi yëpp ñu taxaw temm euh, tambli dugg ci terrain bi euh, dem ci nit ñi wax ak lan mo tax ñu war a Amadou Ba te incha allah ñun ñi suñu bopp ci fan yu néew danañ wàcc ci terrain bi ànd ak ànd ko ak responsable yi ngir ñu mëna jox ndam la grande coalition Benno Bokk yakar bi nga xamni Amadou Ba mom la choisir ci ci ci pour mu jité jité rew mi.